759 tests réalisés, 33 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 14 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Nous avons eu 19 cas issues de la transmission communautaire réparties entre Westfoire 5, Liberté 6 3, Almadi 1, Dakar Plateau 1, Diourbel 1, Fass 1, Kaolack 1, Mariste un Mbour un Mermoz 1, Ngor 1, Saint-Louis 1 et Yoff 18 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Trois cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 25 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 960 cas ont été déclarés positifs, dont 15 558 guéris, 331 décédés et donc 70 patients sous traitement. Le ministère de la Santé l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore restés dans nos services et à ceux également qui sont suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention. tey bésu alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre mi ñu nekk. ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def fanweer ak ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak ñeent ka contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanam importé waaye am nañ ci fukk ak juróom-ñeent. ñu tuddee cas communautaire mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñu seen lim ni la tëdde West Foire moo ci am juróom Liberté 6 am ci ñett Almadi am benn Dakar Plateau am ci benn Diourbel am benn Fass am ci benn Kaolack am benn Mariste am benn Mbour am benn Mermoz am benn Ngor am benn Saint-Louis am benn ak Yoff am ci benn fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wéer nañu bës nikki tey dinañu génn bu ci yàlla ñett malade ñoo nekk réanimation amul benn malade bu ñàkk bàkkanam bu su démb alarba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junne ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak fanweer ak benn ñoo génn àdduna mu des juróom-ñaar fukk si lalu hôpital yi ak ci loxo docteur yi ministère de la santé et l'action sociale muy ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi